mbokk yi wooy leen di abonné ci seen seen youtube xibaaru réew mi tv ngir ngeen di am ay xibaar yu wér te wóor ci kàllaamay Kocc Barma jaa ngeen jëf mbokk yi saani bekk xibaaru réew mi tv tey nag sunu invité nekk mustapha Fall di responsable APR fii ci Touba sam laaj bu njëkk mooy noo gisee taxawaayu APR fii ci département bu Mbacké d'abord mustapha Fall Mouride sadir Mahmoud fondateur APR Touba Mbacké waaw APR taxawaayu APR ci Touba Mbacké ak ci département bi gis naa ne taxawaay bi des na lu bari li ko waral nag euh, damay wax delloo lépp nag encore ci président ndax xëy na moom it mën naa am dañ koo trompé tànn loo ko ñoo xam ne nii mënuñu liggéey bi maîtriser wuñ terrain bi ñime wuñ doonuñu ay homme loolu moo waral ba liggéey bi di sooxee ndax combat politique dafa metti dafa laaj tam nga ñeme terrain bi xam terrain bi aussi ba pare am yéene ci président loolu mooy waral nga mën ko liggéeyal mais gis nañu ne fii département bi mel na ni amuñu ministre la may nuru ndax maa ngi dégg sax ñu am nañ ministre waye dégg daanaka dég-dég la ci man ndax ministre bu département dafa wara incarner leadership bu département bi ci politique di ñu di mëna gis di mëna dik di jot téléphone diko mëna gis di wax ak mom muy wacc ci terrain bi di wax ak askanu di dimbale nit ñi loolu politique dafa laaj social mais bu fekke da nga nek rek yow ak sa ben équipe restaurant bu daw ñom ngay waxat ñom ngay àndal ñom ngay defat ñi ci bokku ñu té département bi Touba ki la bokku bu daan département bi japp na da melni Touba tax sax ñu wax ndax mo ci ëpp mais fi ku ne xam na ne war na am lu mu néew néew ñetti ministre mooy tax ba liggéey bi wala ñeent ndax yeneen département yi am ay ñetti ministre ñeent département Mbacké moo ëpp moo ëpp majorité parce que Touba gi rek am na mu ëpp doole yenn département yi fii ay millions doomu aadama ñëw fi yeewoo kon ko bëgg a gagné te nekk surtout parti au pouvoir parti au pouvoir li jig parti opposition jigu ko ndax parti opposition mun na dem sans moyen mais parti au pouvoir mënul dem sans moyen parce que dafa metti nga mënoo nekk ci pouvoir ñu lay lebal donc ku nekk ci pouvoir mën na am ci moom yéene am ci moom yaakaar di ko di séntu ku leen bu faloo nangam mais nekk ci pouvoir ba pare dafa laaj boo ci boo koy politique nga am moyen ñu ngi lay séntoo moyen boo ko amee ñu ngi la koy séntoo boo ko amul tam ñu ngi la koy séntoo mais daal loolu mooy li ñuy xam li ñuy demandé ministre yi nga xam ne ñoo jóge ci parti réew mi muy Ali Sale muy euh, comment dirais euh, euh, ministre sport bi ñu ngi Yankhoba Diattara comme ministre yooyu dañ koo dénk pour le moment premier ministre ñu ngi ñaan. maa ngi koy demandé président di ko ñaan ci sa ci doole sañ-sañam la waaye ñu ngi ko koy ñaan mu jox ko Touba Touba yooyoon na ko Touba yooyoon na yooyoon na ñaari wala ñetti ministre au département bi Touba kese yooyoon na ñaari ministre wala ñetti a fi ne a soxla kon il faut am ñoo xam dañuy mën a taxaw askan yi mën leen a dimbale mën a que yooyu amul doole mooy amu fi day metti maa ngi ñaan ministre yooyu bu fekkee bala bala ma ko jox kenn maa ngi koy demandé mu jox ko waa Touba doomi Touba yi nekk mën na nekk ministre bari nañu waaw mën naa ci tudd kenn rek wala ñaar ku mel ni ci Abdou ci Abdou Bali jàng na mën na nekk ministre ministre portefeuille lañ soxla ministre ministre conseil la mais ministre conseil amul amul portefeuille donc ñu bëgg mooy ministre portefeuille ku mel ni Cheikh Abdou Bali ku mel ni Cheikh ab professeur Abdoulaye ñaan mun na nekk ministre portefeuille ñu jox leen ministre portefeuille ñu amal leen dooleel leen dooleel tam ñi fi ne dooleel ñi fi ne ndax boo gisee PDS doon gagné département bi téyewoon ko da doon dimbali ay militants militants yi responsable yi mel ni man ñëpp dañ leen jàppale di leen dooleel ñuy dimbale militant de base ndax président mënul wàcc di dimbale nit ñi bu dee kenn nit te mënul incarner département il faut ay nit ñu am doole taxaw fi pour récupérer département de Mbacké mais caaxaan du ko jël loolu moom il faudrait président xam ko te am na ci yu bëri sax yi ñu ko war a wax yoo xam ne mënuñ koo développer ci rajo wala ci presse ndax a stratégie la te stratégie kenn du ko sànni ci mbedd ndax sa adversaire bu ko xamee dala cay jiitu am na yu bëri bëri daal ñu ngi ñaan président toog ak moom mun ko wax lan la ñuy def pour département bi ñu gañe ko

sëñ Saliou ko tabaxoon maa moo ko waa mat labul faw sëy ni daayira bi ko tabax dërëmu état di mujj bi fi Macky Sall la fekk ñu tabax ko fi dafa ñëw dolliwaat fa lu ëpp la fa ne ku fa dem gis ko immeuble ba mu fa def mu ëpp bâtiment yi fa nekk am fa fekk loolu dooleel Touba ñu ne déet hôpital Ndamatou bee mu dooleelaat ko encore renforcer ko loolu yëpp ñu gis nañ ko ñu ngi ay bët dëkk bi corne 30 bii gis nga ni ko talee ba mu wëraat dëkk bi ba del si ak ak dë tali dëkk bi boo demee yoonu yoonu Baye Fall ga gis nga nam ko def kenn mosu faa mën a dem tali na ko ba mu egg yoonu yoonu saam kenn mus faa dem tali na ko ba mu egg dégg nga yoonu tindóori ma nga nee tali na ko ba mu egg kenn mus faa mën a dem ak yoonu yoonu yoonu daaru karim ak biir dëkk bi tali yi gàtt yi ci biir dëkk bi ak nga dem marché Ocass dem ko liggéeyee tali ko paawaas ko kenn mus ko xalaat ku mel noonu nag doo ko am di ko fooye waaye liggéey boobu li muy rëy rëy rëy bu amul ay nit ñu dox ci digganteem ak askan wi man koo man koo développé man ko nit ñi man cee wax nit ñi du sotti bilan am na mais bilan kese du tax a gaay yow en tant que membre fondateur APR fii si Touba donc li nga wax yëpp ne Macky Sall moom moo ko def Touba léegi lan moo tax euh, askan Touba joxuñu bopp APR ak président Macky Sall. askanu Touba ñi fi jiital ñoo leen neexul ñi fi teg ñu dox diggante président Macky Sall ak askan wi ñoo leen neexul. xam nga politique du question nga dem ci sëriñ rek mu ne la defal lii defal lii àndal ak kee àndal ak kee politique am de terrain lañ koy jox un politique diir pire diir mais xamul luy politique nga jox ko politique tam du dem dañ waxante dëgg loo fi a def ko ay niti politique ñu may terrain bi di wàcc di dem di ñëw di seeti militaire de base di fekk nit ñi seen néegi di wax ak ñoom du sotti président ñi mu fiy tànn wax dëgg yàlla ñoo nekkul ay am politique ñoo ko dañ ko dëgg dañ koy nax rek day ci kilifa diine yi ñoom xëy na seen yéene la ñu ne ko ah diw de baax na nangam naa mais diw moomu est-ce que am te bu nekkul am de terrain du sotti na ubbi bëtam xool na ubbi yi xool réew mi benn président mosu koo ñàkk département de benn président ci moom lañ ko mas a ñàkk du ca Senghor du ca Abdou Diouf du ca Abdoulaye Wade ñoo ko mas a contrôler li tax ñu doon contrôler ñoo dimbale woon nit ñi fi ne seen ba seen responsable ne ci département bi dëkk Touba ak Mbacké ak àll bi dañ leen a dimbale woon ñuy mën a dem ci nit ñi nit ñi leen naqariwul leen loolu dañoo gisul kuñ waxat président li fi def ci ay ay ay ay ay ci dëkk bii dëkk bi xool ni mel courant fu ne ma ngay leer naa ñi dëkk bi ñun suñ koñ bii màggal daawuñu am suñ suñ suñu ventilateur daawul daw ndax courant bu feebal faible euh, euh, climatiseur tax waxaale wuñ ko ah, ah filicière daawul dox da daraa fay da ko daa fay ba nga gi yàlla parce que courant bi du ko attan léegi renversé na courant bi ba nga xam ne macha allah ñëwuñu kenn ci courant ci ci dëkk bi fi ne mbedd yi fool jàpp foor jaar ba nga leer naññi tali yi doy na sëkk mosuñ ko xalaat li am nii ci Macky Sall giñ naa ci yàlla mosuñ ko xalaat mu mosuñ ko xalaat kon nag buñ ko amee ba pare ñu di jufe gagné nag xam ne am na leneen lu ne ci biir loolu ne ci biir nag dafa laaj mu toog ak ñu xam yëf yi toog wax ko ko lamp càmbar ko de a sedd tegal ko nan la ñuy doxee ak nan nan la ñuy def ba gañ moom xam na ma bien ñëw na fii président ñëw na fii deux fois sama kër gii fii saal fauteuil bee toog na fi deux fois kon xam na sama cap compétence xam na ko compétence bi amoon ci xamone ci man nak bu ko upp fouf la yor ndax sama capacité dafa yokku ba pare sama xamé gëna bari té upp nit ñi gëna am ci man confiance am ci man yaakaar donc ñu mel ni ñun bu ñu négliger dafa ñu gannaaw bu ñu laisser en rate fi dañ fi perte loolu mom lu leer la il faut ñu respecter nit ñi dimbale nit ñi aussi fi président da ko wara a gañ mu nu mu ne ko 60 wala 70 mais bu ñu ko fi gañ xam ko y a quelque chose. lan mooy sa sàkkuteef ci APR ak tamit soo amul occasion toog ak président Macky Sall loo koy wax. waaw wax ko rek fii nan la ñuy def ba gañe fii lu weesu toog wax ak moom ba teg ko ci yoon woo xam ne buñ ci doxee dinañ gañe ndax fii yëf yi ku nekku ci loxo kenn fi mu waaw population bi kenn moomu leen ku leen yëg faale leen toppatoo leen ñu wateel la surtout bilan bi fi am dafa yomb défendre waaye nag bu fekkee amul ñu koy défendre. bu buñ koy saaga kenn du défendre défendre ah fii dafa war a am ay ministre portefeuille yoo xam ne nii dañ am xam politique ba pare bëgg politique ne ci terrain bi am ay ministre conseil yokk chargé de mission yi yokk yokk comment dire direction yi directeurs yi dolli ñu ay directeur fii dëkk bi ay gone yu capable la fi ne man fi xale yoo xam ne mën na yor ministre mën na yor loolu mën nañ ko yore yokk chargé de mission yi yokk yokk ministre yi bu baax a baax renforcer dëkk bi mooy tax nga gàññe ko mais nii ñuy def nii rek buñ ko defee benn foo yooyu moo joge ci àll ba rek gañe fi fii buñ fiy tudd sonko c'est parce que kenn dafee nekkul sonko wuru fi am dara absolument ndax nit ñi sonko du am lan la defal Sénégal absolument rien mënoo ma wax ne ma sonko defagul ab classe école tabaxagu ko ci Sénégal ba ba école sax mosu koo may ci Sénégal mukk te koo xam ne yor na réew mi wan ñu capacité am ba pare indi ñu wërsëg boo xam ne nii fii buñ fi amee buñ gañee coupe d'Afrique ginnaaw nañ ko yaar sant yàlla waaye nañ ko sant euh, euh, comment dirais-je euh, Macky Sall wërsëgam la essence bi feeñ ak gaz bi feeñ sa war sëgam la moom la dajeet yàgg nañ ko bëgg nuñ ko am demi final coupe coupe demi final demi final coupe d' euh, Afrique sax mënuñ ko am bay bay bay jël coupe d' Afrique te ñu ngi xalaat coupe du monde di xalaat lu nekk ah loolu feeñ nag muy matériel bi fi feeñ muy essence bi gaz bi duñ ko jox ab samba booy buy taxawaalu ci àll bi ñu koy jox ñu koy yàq duñ ko def xalaatuñ ko Sénégal yi dofuñ bay teg ci réew mi koo xam ne buñ ko tegee day jàng ku man ba pare di doxal la ñuy teg jox réew mi mais ku kuy tax ko joxee moo commencé ABC di seet jàng di jàng duñ ko jox Sénégal Sonko mënu fi am dara fii bu ñu bu ñu dooleelee man personnellement man bu ñu ma dooleelee fii Sonko du fi fi laal dara loolu leer na ma naññi mais nag boo amul moyen loo yéene yéene ak loo man man politique te amoo benn moyen aussi du sotti nañ waxante dëgg Idrissa Seck mii génn nii dem na mais moo gagné woon fii élection passée euh, de euh, élection présidentielle 2019 bi moo ko gagné. mais fi mu ne nii comme defu fi dara ñi fi nekk bu ñu leen doole la ñu ñu pere ko nañ waxante li fi ne mais loxo kese bu du politique. Euh, yaa ngi naan Sonko amul doole mais ñun li ceenu depuis ba bindi mi tàmbalee ba léegi ñeel wàccaay élection ñu bari si xale yi day dem di bindu daal fees dell sax euh, commission loolu tamit est mënta euh, tee seen xel yéen en tant que waa APR. mais xale yi bind ku leen wax ne kii la ñu wateel loolu kenn xamu ko yéen journaliste yi am nañ leen ah, trop mais aussi ñu ñu bari tamit Sonko lañ àndal non ñu si bari tamit après dañ ànd ñun ñoo leen ëppale xale dañuy am ñu koy waxal loolu mooy problème bi rek terrain bi moom dafa laaj di dem ci terrain bi mën a wax mën a gis mën a discuter mën a débat dem ci plateau yi dem ci militants yi dem ci daayira yi dem ci tuur yi dem ci fépp bu football amee sax nga dem ci man mi lu ne lañ ma ci invité damay dem damay déplacé ci lépp waaye bu fekkee man man kese laa fi aw mu ñeneen koy def daan lay sotti du sotti xale yi bindu nag ñu euh, euh, Pastef da ko bëgg a moomoo ma moomu ko de kenn xamul ku ñu wateel ku ci nekk bu daas ba naan lay def bu bés wate baa lay xool kan moo ko doy bu wateel ko bindu ak wate du benn loolu tam dañ ko xam bu baax bindu dawaar la wat wat la waaye kii bindu bu noonu mën lay wateel moo tax diggante wat wat moom mën nga xaar ba ci guddi gi ba bët set bay wate ji dem ba moom du ma ci ci du ma ci sécurité ci assuré ci wax tamay ni nañu bindu ci soññi leen euh, encouragé leen jàppale leen pour ñu bindu ñu amul carte d'identité maa ngi leen di fexeel ñu am ñu am carte d'identité non votant fexe ba ñu. bindu ci si loolu ñun ñu gis ñëpp ñoo xamante ñooy soññe moo ñu bokk si euh, Sonko ak ñu mais yéen ñu bari kenn gis leen ngeen soññ xale yi suñu dem di bindu ji. waaw pourtant man maa ngi koy def mooy li ma la wax rek dafa daanu daanu daanu dañu suuf mais man sama capacité la man man maa ngi koy def waaye bu fekkee ñeneen ñeneen ñi booleel defuñu ko xoolal ñu jox ay pièces ministère jox def la ay ay ay ay ministre conseil jox la ay ay de leen lu nekk ah donc li ñuy def leen député ñuy def leen au conseil ñuy def leen conseil économique social mais ñooñu bu ñu wàccoon ci terrain génne jox ko xale ñu dem bindu ci ndax mbindum itam dafa xaw metti ah, il faut ñu dooleel nit ñi mais loxo kese du sotti li ma la waxoon ci départ ba rek fii président Macky Sall bu fi bëgg a gagné dina change équipe ñu fi teg moom dañ leen teggi teg leen fee comme ci dimbale nag moo ci àlal boppam moo xam loolu suñu yoon nekku si mais en politique dafa am aw yoon en politique du copinage en politique du copinage en politique du mboko kuko man lañ koy jox l'homme qu'il faut à la place qu'il faut tant que defuñu loolu fi lañ fi liggéey bay bëgga dédu am sérum loolu mom na la yar wa ci lo tamit léegi ñu wax rek ci walu mo ak yalla yàlla nak tamit gis nañ Ousmane Sonko ci atté bi nga xamante mo doxon doxoon diggante ak Mame Mbaye Niang moom nag mo daal nee na dañ ko bëggoon a faat mais yooyu yooyu wax ndax sa xan nag la xam nga yeewu suba tee rek biddanti di wax lu la neex dafa yomb état ba ko soxlaa duñ ko kar ci mbedd néegam lañ fu mu la fekk la nga taxaw a faat yooyu procès buy jub si mu indi ay lay moom saa yu procès jub see rek dina indi prétexte pour bu procès bi jàllee nangam mais yi ñu wax yëpp taxawul Ousmane Sonko moom du dara il est rien parce que tam xam na ne procès baa ngi ñëw damay jox la beneen information diggam ak Adji Sarr la 16 lañ koy lañ yëngaloon tey laa ko yëg léegi nii yooyu nag moo moo moo moo toj bopp bi nag mu jaxasoo xam na ne fen lay liggéeyee fen lay dundee da koo doon ci deretam nit nag fen su fekkee fen lay dundee fen koy may lu mu am day jàpp ne fen rek ki la war a continuer du ko bàyyi ba aliyaayu mi diidi sotal na fi maam Mbaye Niang vingt-neuf milliards dara du ci dëgg ñëpp xam nañ ne doon fen seen fenal na fi Mamour Diallo quatre-vingt-quatorze milliards dara du ci dëgg xam nañ ne da doon fen ah fenal na fi sax Sëñ Muntaxa mi ma ngi koo soxlaa gis trois mois maa ngi ko soxlaa gis te dara du ci dëgg gis sàkku ko woon a gis na fii ne système bi ñu fi ñëwoon yoroon réew mi ñëpp dañ leen a fiché tàmbalee ci Senghor ma dee mu ko war a fiché xanaa lu nit néeg ko ba mu yàgg mu ko fee ba mu ne dañ ko war a fiché Abdoulaye dañ ko war a fiché Abdou Diouf dañ ko war a fiché Macky Sall dañ ko war a fiché a wax ak système bi ancien anti système la tey mu ngi ñëw daw ci ginnaaw commandre euh, euh, euh, Khalifa Sall Khalifa Sall du doomi système bi Habib Sy du doomi système bi ah commande des ngóor su ci des Malick Gakou doomi système muy waxat la mu waxoon lépp da ko wàccu Ousmane Sonko amul kaddu lu mu wax ci suba gi balaa ngoon mu fàtte moom damaa defe ne sax dafa am problème bopp dañ ko war a faji waaw. waaye tamit ci wàllum actualité rek yow euh, bàyyi nañ ci benn bokk yaakaar donte nag bàyyi nañ mais tamit ñu bari si askan daal nee nañ euh, ñoom ñaar dañoo teg dil non xam nga Sénégal moom. xam nga ñoom bi ñuy ànd dañoo waxoon lu leer xam nga képp ku teg parti politique fekkee dëgg la ci yow jot ci réew mi moo tax nga teg parti man loolu laa gëm kon Idriss Seck nañ bàyyi moom Macky Sall dañoo dil dil amu fa ba ñu ànd lu leer lañ waxoon ànd bu le bu sincère lañ àndoon dañuy ànd sauver réew mi ndax boobu réew mi amoon na jafe-jafe crise crise mondiale am na jóge nañ ci crise duggaat ci crise mu ne ko nag léegi dañuy ànd liggéey waaye bu élection jotee am nga sañ-sañu dem bu la neexee ñu ak continuer bu la neexee nga dem ñu d'accord ci ñu ànd ci loolu kon lañ d'accordoon ñoom ñaar ñëpp ku ci ne respecté nga lañ waxoon mais Idriss Seck parti la yor man ànduma moom waaye nag bu yoree parti am te waxoon lu leer ak président bu fekkoon dañoo waxutoon kon mën nañ ne dafa wor wala dil mais dañoo waxoon wax ju leer ba ànd comme jot na am na droit laaji réew mi comme ni ko Macky Sall di laajee ni comme ni ko keneen di laajee ñiy wax nag ñàkk argument rek la ñuy waxee ak ñi naan troisième mandat ay deuxième mandat ay wàkk argument la constitution Sénégal dañ L'intérêt moi, quand nous faisons président de la République, nous avons un mandat qui a droit de 5 ans. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs de 5 ans. Mais nous avons besoin de un peu de temps. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Ce n'est pas vrai. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs de 5 ans. Nous avons besoin de nous donner un peu de a le droit de faire mandat de 5 ans mandat de 7 ans, si nous avons fait le référendum, c'est un mandat de 5 ans. Parce que nous avons une comptabilité 5 et 7. ñaari mandat mënut a nekk ñaari bokkut ñaari sept ans a def wala ñaari cinq ans boo defee cinq ans ak sept ans day nekk douze ans te dix ans la président war a toog kon loolu ñuy wax yëpp a ñàkk argument la président woon na leen nag ko wuy ji maa ngi koy conseil ñu dem wuy ji président ndax am na ci ñoo xam ne am nañ problème mu euh, légitimité te loolu waxtaan rek moo mën a def ñu changé dara ci ci constitution bi wala ñu changé dara ci loi bi pour ñu moo ñu mën a wate ku mel ni PDS ma euh, Karim maa ngi koy diggal ak nitam nañ dem wuy ji ci woote wala fekkee ñu jiitu Khalifa Sall moom joxe na kiyam ay nitam nee nañ day wuy ji mais moom ci boppam dégguma kàddoom waaye ay nitam nee nañu responsable nee nañ dana wuy ji maa ngi koy ñaan mu wuy ji ñi ko naan bul wuy ji yëpp dañ koo bëgg a rey rey ko politiquement du bokk bu wuy jiwul mbir ñu régler situation am du du bokk ci élection yi kon nag ku lay naan bul wuy ji te moom xëy na moom mi ngi yaakaar moom li éligible la wala moom xëy yaakaar dana éligible yow xam ne éligible loo mu naa la bul wuy ji rey dañ waxante dëgg politiciens yi nañ bàyyi di tax ci kaw seen morom bopp politiciens yi sonko bi mu toppi lamar lamar na ko fa baax na ko fa ñukk nu yàq faro bëggee dara bu bëggut dara nag topp ci kaw sonko ñoom ñaar ñëpp kenn du ci jàll sonko moom leer na ko du dem élection muy def yëpp xam na ne day xaru rek ku dee ba pare nag di la woo pour nga ànd ak moom dee da ngay lànk waaw nañ waxante dëgg nañ wuy ji uh, dialogue bi waxtaanee ko Idriss Seck nag bu bàyyee demit ñun bàyyi nañu sunu sunu conseil économique social jox nañ ko keneen sunu ministre jox nañu ko ministre yooyu la ñuy réclamer ñun waa Touba nañu ko jox ndax kat premier ministre mënu koo continuer yore faaw dañ koy jox nit ñaari ministère yooyu nañ ko jox doomi Touba yi dëkk Touba waxuma la département ay Mbàkke ki beneen bi Touba laa wax nañ leen ko jox. moom moo doon ñaxtu doon xeex li nga xamante ni moo di troisième mandat moom tamit eh, ndax yow d'accord pour nga troisième mandat. loolu loolu troisième mandat moom xoolal bi conseil constitutionnel joxe wér digg troisièmement la nga la a jàpp ndax moom moo ne mandat bi may def su jeexee naa waxi waxi président Macky Sall du constitution ah, moo ko waxoon de donc tey waaye imagine tey bu noonu damay toog juróom mandat ndax danañ nangu ndax danañ nangu xam nga wax boobu du waxi dara toujours noonu gars yi dañuy wax dañuy lekk ni làmmiñ mënut a lekk morom ji te ñurul opposition bi dañuy jéem a dox ci kaw pouvoir bi yooyu tey bu noonu ma damay toog juróom mandat ndax danañ nangu dañuy lànk kon bu noonu damay toog bii mooy sama dernier mandat ñu dañuy lànk nañ waxante dëgg kenn li li mbiri bi loolu la ñuy doxal ñun faale wuñu waxi Macky Sall waxoon loolu loolu moom la engagé ñun daal en tant que APR en tant que bokk yaakaar li ñu gëm mooy li ñu def ci constitution bi loolu la ñuy respecté ñaari mandat yi cinq ans benn mandat cinq ans la mi ngi nii jeexagul bu jeexee bu amaatee mandat 2019 mu able mais tant que 2019 jotul mënuñ ko fay jëlee bu buñ wóoloo seen bopp def sëgg dem ci terrain bi que le meilleur gagne ku man ku man sa morom duma ko buñ wóoluwul seen bopp nañ dem toogi te bàyyi bañ ñoo rey ak làmmiñ wu rëy. Euh, waaye tamit euh, lu mat onze mois rek a des pour ñu amal élection yi euh, ndax yéen APR Touba noppi ngeen ak aussi yan jéego ya ngeen def ndax gis na ne depuis deux mille douze léegi chaque élection de président Macky Sall dañ ñàkk Touba yéen yan ngeen mën a am ndam ci di ñëw. waaw mooy li ma wax sànq rek nañ changé équipe bi booy teg nit kay ay nit mu ñuy perte ngay teg ay nit ñuy perte te nga xam am compétence. mais doole la ñooñu am compétence ñu liggéey man gis affaire bi compétence la may nuru ñuy ñu lay perte loo 12 ans mais doo leen changé tek ñeneen ñu xam ne am nga ci ñoom yaakar mais il faut changer amul benen solution tant que changé ñi ñu jiital yaakar leen duñ mas a gagné département de Mbacké té li ma la wax ni boo amee foo bind bay bo nga bind ko fa. mais tamit est-ce que ne ko yéen seen biir tamit yéen waa APR tamit seen ful ak seen seen ñàkk bolo bok na li indi. golay bay babu ndunde mënut ta nek ñii nekk ci terrain bi am na terrain ñu tax teg leen ci gannaaw lese leen araat ñi tekkiwul dara ñu jox leen alal ñu ci loolu bunta ànd ànd ak ànd ak résultat président daal li fi am moo ko fi def bu ko bëggee dindi moo koy dindi man nag maa ngi sàkku toog ak moom ndax li ma ko war a wax am na yu bëri na laa la mënatu ko wax ci mënatu ko dévaler ci presse ndax stratégie moom kenn du ko da ci ciy rek bàyyi mais duñ ko wax li ñu war a wax asaka ji sax duñ ko wax ci presse c'est parce que suñu adversaire buñ ko xamee lépp lu loo tabax ñu yàq ko li ñu leer ñun daal mooy am nañ compétence am nañ volonté am nañ xam-xam bi am nañ courage bi aussi affrontement bu ñëwee amul kenn ku ñu daw ñun que ñun tam bul xam fàtte nañu ay ancien PDS lañ membre fondateur lañu ci PDS Karim Macky Sall bi muy génn PDS lañ génn ànd ak moom sosandoo parti nekk membre fondateur tabax parti bi parti APR ñun ñoo ko indi ci département bi ta lawal ko fi quinze quinze communes lawal ba ba mu yaatu fi mais biñ demee ba xamuñ kan mooy kan di jël ay ñoo xam ne ma yàlla baal euh, gënuma leen ci dara waaye ci politique mënuñu ko politique dañ koy jàng doo xëyee fee ci làng rek ñëw ñu jox la ñu jox la jiital la ci politique doo dem fenn politique dañ ci yàgg presque 40 ans ñu ngi ci politique kon loolu doon ci bu ñu xamutoon dara xanaa bu xamutoon dara sax xanaa war a xam dara nañ ñu essayé ñu xool bu ñu essayé boole boole ñoo ñu fi ñun mun nañuy jaboote ñëpp mun nañuy boot ñëpp mun nañoo mun nañoo jiital yërëm ñëpp taxawu ñëpp ñi nga xam ne boo leen jiitalee dañuy taxaw ne seen bopp ak seen i kese ñeneen bokkuñu mooy ñooñu loolu mooy tax mooy mooy tax président Macky Sall di fi perte du leneen de. il faut ñu jox nit ñi yëfi seen gëdd jox leen seen àq seen yelleef dooleel nit ñi politique loxo kese du ko def surtout parti au pouvoir te euh, Ousmane Sonko mii rek parti opposition la de mais ay milliards lay lay financé seen campagne yëpp ay tourné ay milliards dañ financé ndagam ki ne ci opposition moo mën a mais ñooñu boobu léegi yaa ngi naan Sonko Sonko yéen daawee Sonko da leen takk der dañ xëy fees fa nit bu fekkee ne boo ko ba bàyyee mu toog ak sagom taal réew mi lay bëgg ñu ngi yaa ngi dégg information yi ah ñu ngi defar defar ay bomb fu ne ñu ngi ko fay def ñoom ñooñu bu ñu wooyee Sonko ñu leen dañuy jóg dañuy tas réew mi bu fekkee ne du dox sérieusement foog foog da koy contrôlé bomb nekkul loo xamante ne ay caaxaan la ah yooyu ñuy defar cocktail molotov lu mu doon bomb la bomb petit bomb la rek ay bomb la ñuy defar maa wax loolu lii ñuy def lii xam nañ ko ñoo leen ci jiitu foofu ku ne ci PDS yàgg ci lii ñi di def dara jaaxalu la si man man donc man jaaxalu moom di tu ay ni tamit xam nañ ma bu baax xam nañ ne man aw ma lu may tiit faa yëguma sax na ñoom ñu ngi dund ñoom ñoo may topp sama gannaaw daw waaye man faale wu ma leen mais foog Macky Sall teg fi ñoo xam ne nii buñ ne buñ ko ne buñ ko ne buñ ko ne duut baaraam ñooñu taxaw mais ñi fi ne di làqatu daw buñ tuddee Abdoulaye Macky Sall daw di làqatu di passe passe yow xam nga yow gis nga panel gis nga leen doo dégg ñu ngiqi affaire yi fi nekk dañoo ragal ah doo dégg kenn ku ci ku ci tëqat buñ buñ doon saaga Macky Sall sax dañuy def parti parti di wut fu ñu làqatu wala dañoo bëgg a war Macky Sall lan la lu xew buñ la falee ministre nga war a dimbale nit ñi di faale wu nit ñi mënuñ laa gis ku la woo du la jot ku la seet du la gis doo dimbale askan wi nga wut sa équipe bu ndaw rek juróom-ñaar yi wala fukki nit rek ñoom laay waxat ka Mbàkke laa yem da ngeen nag def ministre département ah ak ñeneen ñi fi leen ñëpp ngi toog ko ne ko ne wut sa ruq dugg fa bu fa weer dee nga fayu sa salaire toog toog loolu mooy politique président Macky Sall bu bëggee gagné département bi li bu ko deful fii di commencé gagné man donc néew ma am na fi ñeneen ñu mel ne man ñoo xam ne ay ancien lañ sosoon parti bi ñu ngi toog mer ne cel toog seen ruq toog man nag damaa munta gedd ndax doo doo jur doom ba mu màgg nga di ko wàcc APR ñun ñoo ko jur